bismillaahi rahmaani rahiim mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullaahi wa barakaatu yéen nga xam ne yéen ànd ak ci Ali TV tabaarakallaahu ñu ñëw wax leen rek wala yokkar leen yéen nga xam ne da ngeen a bëgg ci jataay bi maanaam da ngeen bëgg a abonné di bës ci bi maanaam fi ngeen di bës seen loxo su ngeen bësee cloche bi noppi daal di def j'aime te bu leen nag commentaire yi ndax am na ci bu ko defee nu ànd ak yéen ci liggéey bu ko defee abonnement yi gën bari àdduna si yëpp ànd ci ak ñun loolu mooy doxal ak bi jërë ngeen jëf bi ànd bi ngeen ànd ak ñun yal na yàlla sàmm te sàmm salaamaaleykum wa rahmatullah bismillahi rahmaani rahim rabbi israh sadri wa li amri waxlul uqdatam min lisaani yafqahu qawli bokk ñu seetaan ci biir réew mi ak ci bitim réew asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. ginnaaw bi ñu sant yàlla subhaanahu wa taala julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñaan jàmm ci àdduna si tey mu war nekk incha allah sunu juróom-ñetteelu daje ci sunu jotaay yu tudd siira ngeen koy am samedi bu jot ci waxtu wi ci kàttanu borom bi subhaanahu wa taala siira di jàng dunduk nga xam ne ku la gën a xam dundam nga ëpp la xam-xam siira loo xam ne ku xam dund ak yonent bi topp ko ku ko gën a topp raw ñu ko topp alayhi salaatu wasalaam ci la ñu nekk di introduire introduction bi moo jeexagut <laughs> ci la ñu nekk incha allah ndax ñun ñëpp a ko war a waajal waajal ko ci suñuy nopp waajal ko ci suñuy xel ak suñuy xalaat waajal ko ci sunu dëkk ak sunu dëkkin ndax gan la goo xam ne ku mu ku mu si si yëpp ay baax ndax si yëpp lay baaxal ndax jàng nañ la xat su suñu tomb tey dafa jëm ci mu arrixoone yi mu arrixoone yi mooy historien yi je pense que nu lañ koy waxee professeur Djibi historien yi dañoo nekk ñaari group ñu tey ñi ak ñu démb ñu tey ñi dañoo am nu ñu bindee taarix ñu démb ñi am ñu bindee taarix ñoo loolu nag xam leen ñoom it dafay baax ci ki bëgg a jàng démbi yonent bi ak tayam ak su ëllëgee mu arrixoone démb yi kon ak mu arrixoone tey yi ku ci nekk am na noo daan analyser noo daan aborder euh, taarix wala histoire mu arriqoonay tey dafa am lu ñu tuddee taalil taalil mooy tiim texte bi diagnostiqué ko génn ci ay yëf jox mbooloo mi taalil ñu boole ko muwaasana muwaasana mooy jëm koo am benn def ci benn équilibre boo xam ne day tax kii dund yonent bi alayhi salaatu salaam ñu ko doon dund démb moom mi koy dund tey du tax ñu ne ko yow da ngaa muwaazana lu am solo la ci ndax nit day def léeg leek su nekkee ci lenn ki ci nekkut mu jàppe ko ne dafa tardé fi ne Europe mi ngi ci nax Afrique amerique mu ngi ciy nax Europe ñoom ñaar bokk di nax Afrique mooy danga ngaa tardé maanaam bokkoo civilisé woo boo melut nangam civilisé woo dana dugal jigéen ñi ci sol luñ bëggut sax nag. la jigéen mu sol loo xam ne lii moom boo koy xoolee da xam ne kii bëggut lim sol lu tax parce que sol lu gàtt te booy dox mu nga xëcc ko mu wàcc loo ciy xëcc mooy li nga sol da nga koo bëggut léeg nga toog ci kaar bi wala ci dakaar dem dikk bi wala ci tata fab sa saak teg ci sa kaw lu tax parce que fi sa sipp bi toll arrangé wu la bëggoo ko waaye da ngay bañ ñu ne la da ngaa tardé nga sol sipp bu gàtt nday ndeysaan fab sa saak teg ci kaw eh, kebale say tànk dara du sotti bu fekkoon da ngaa def tawazun nag maanaam équilibre boobu di am ci dunduk yonent bi alayhi salaatu salaam da ngay xam ne mën ngaa dund époque booba dund époque bi te kenn du la wax ne kaw kaw nga da ngaa te kaw kaw nga du xas kaw kaw nga doo xas de ndax yonent bi alayhi salaatu salaam bi mu gane jamono daañ ci àgg ci biir sira incha allah yaayam daf ko yóbbu ca kaw ga ne ko dama bëgg nga nekk kaw kaw il faut être un kaw kaw pour mën a defar nit ñi <laughs> ndax kaw kaw ngeen ma baal ku mën a doylu la lu lu yàlla dogal parce que kaw gi nun kaw kaw yi bu boo ma fa fekkoon tey jox ma million danaa am ak moom juróom benn weer du jeex boo ma fekkoon càlle ma nekk càlle nga jox ma un million danaa fa nekk ma ne juróom benn weer du jeex waaye Dakar gi boo ma fi joxoon fi nekk dix million vingt million quarante million bu bis bi see boo ma ko laajee weccate ca des loolu lu am solo la ci dund yonent bi tax yaayam jël ko yóbbu ko ca kaw ga ndax mu yor jikkoy kaw kaw jikkoy doylu jikkoy bëgg saw làkk jikkoy xam sam réew ba mu dellusee ma Makka it dafa ne agsi rek yaayam ne ko kaa ñu dellu ca kaw ga fun jëm mu ne ko tey Yasrib ba lañ jëm ca sa najaay ya mu ngi ci bind ci kanam incha allah Euh, bu ñu ci àggeeg jàmm kon historiens yi tey ñoom ñooy def taalil ñooy ñooy diagnostiqué euh, tabarkàlla thème bi waaye bëgg ko def tawaasun bu ko defee nag li ñu tuddee rabtul hawadis maanaam xew-xew yi xew-xew yi ñoom xew-xewi démb yonent bi dañ koy indi ci xew-xewi nit yi tey allahu akbar loo ko mooy da ngay dégg ne yonent bi kii benn affaire la bu fi jaaroon ñun bokkuñu ci ndekete xew-xewi dem bi yonent bi ak xew-xewi tey nit ñi dañoo lënkaloo benn lañu moo tax ab jullit buy dund diineem nit ñi duñ ko mën a wax ne ko bokkoo wala dangaa ngaa tardé wala diine dafa tardel nangam neenu soo ko seetloo ci jigéen ñi col gi leen sunu borom tànnal subhanahu wa taala jox ko yonent bi ne ko nañuy solo nii sol googu du xewi <laughs> sol googu du xewi waaw yow lam ne ko woon ah, neel jigéen ñi sa sox sa soxna yi jigéeni jullit yi nañuy soloo nii col googu moo dul xew yi waaye col gu fi am gu dul col googu nag bis dana ñëw mu xew yi jigéen ñi daanañ sol robb bu tudd nàngam ñu dem yàgg ñu sol camisole bu tudd nàngam ñu dem yàgg ñu sol paañ bu tudd nàngam yooyu yëpp dangay ngay dox mu yàgg rek mu xew ñu indi leneen waaye gis nga col gis sallallahu alayhi wa jàngale Euh, alxuraan jàngale ko mooy col gi dul xew ci jigéen ñi du tey du ëllëg du ginnaaw ëllëg col googu mbokk yi danga gis jigéen ju ko jël def ko ci vax mu jàpp ko mu def ko ci Lagos mu jàpp ko mu def ko ci jasneer mu gën koo jàpp mu def ko ci cuub ñépp ne accam ngeen baal ma mais loolu noonu la historien yi di def mooy rabtul xawaadis al muxtalifa fii si baaxi fii si baaxi muta mutanasik wala mutamaasik loolu dafa am solo lool ci jàng taarix dafa am solo lool ci jàng dund yu yonent bi alayhi salaam ci la jigéen di xamee ne kon man ndeke tardé wu ma au contraire da ngaa raw ñi laa naan yaa tardé yaa leen raw ndax col gi ñuy col ñoom day day xew bu xewee far xewee baale leen danay wax sëñ Mbàkke ne ko yàlla na ko yàlla yokk wér ne ko gis nga nun jàngalekat yi <laughs> jamono ngi ñoom nu xew wi ndeysaan waaw nit ñi ñu seetaan rek bañ xëy xew baax na rek <laughs> nit ñi ñu seetaan rek bañ xëy xew wi ñu naan ndeysaan Oustaz Alioune Sall eh, Oustaz Mbacké Sylla ndeysaan wala ñu naan Oustaz Alioune Mbaye ñu xew wi bu dee réewi Soudan doo xew wi parce que dañuy fexe ba doo xew dañuy fexe ba doo xew parce que lu xew xew yi historiens loolu dañ ci def liggéey yu rëy nan ko ci def nun tam par exemple tey sunu ustaas yi fi jaaroon yal na yàlla sàmm ñi fi nekk ñi faatu ñu yërëm leen bu fekkoon kenn def na ci bërit ñu dégg li na ci moom ci xam-xam ñu fab suñu alal yëpp investir ko ci moom di xaar yàlla ustaas boobu ubbi ay daara ubbi ay école ba ubbi ay université loolu dana tax njàng mi nga xam ne mooy am ren léegi ñu naan duñ jàng léegi duñ jàng laa duñ am problème boobu kon doo jël sa doom mukk yóbbu ko ci bi école ñu naan bu muuroo du fi jànge malheureusement oustaz yeeg ilimaan yi ndeysaan rek ngay dégg waaw bëgguma lim kenn ci ñoom waaye am na ñu fi jaaroon ñenn ñi génn àdduna ñenn ña màggat nañ ñenn ña tëlee nañ nun ñuy foofu lañ jëm rek tubaarkàlla lu am am solo la ci penc mi moo tax historien yu tey dañuy taaliil dañuy fekk benn benn benn benn tomb ñu indi ko diagnostique ko xëcc ko jegel ko nit ñi waaye lënkale la xewoon démb ak bu xewee tey nu muy mel mbokk yi yàlla na jàmm yàlla nekk ci yéen ak seen njaboot topp ngeen di topp Ali Imran TV bég nañ ci lool nun ñi ci nekk ak ñi ñu ko àndal ñëpp ci technicien yeeg caméraman yeeg képp koo xam ne ki yaa ngi jàpp ci liggéey bi rawatina ñi nga xam ne ñu ngi abonné ci seen bi euh, tey def seen commentaire yi di ñu jaajëfal waaye tey dugal seen loxo ci liggéey bi euh, saa su nekk guddi ak bëccëg loolu am na solo lool. bég nañ ci ni ngeen di toppe jataay yooyu yal na yàlla sàmm nu sàmm leen aar nu aar leen ñoo ngi jéglu soxna yi di jéglu sëriñ si di ñaan jàmm ci réew mi réew yi ko wër yal na yàlla defar seeni mbir defar suñuy mbir ca ci suñuy poos dara in uridu illa al islaaha ma tataatu wa ma tawfiqi illa billah wa rahmatullahi wa wa rahmatullahi wa barakaatu yéen ñi nga xam ne yéen ànd ak ñun ci Ali tabarakallahu ñu ñëw wax leen rek wala yokkaat leen yéen ñi nga xam ne da bëgg bokk ci jataay bi maanaam da ngeen bëgg a abonné di bës ci cloche bi maanaam fi ngeen di bës seen loxo su ngeen bësee cloche bi noppi daal di def j'aime te bu leen fàtte nag commentaire yi ndax am na ci solo bu ko defee nu ànd ak ci liggéey bi bu ko defee abonnement yi gën a bari àdduna si yëpp ànd ceeg ñun loolu mooy doxal jërë ngeen jëf bi ànd bi ngeen ànd ak ñun yàlla yàlla sàmm leen te sàmm salaamaaleykum wa rahmatulah